salaamualeykum waa Sénégal salaamualeykum waa àdduna ñu ngi waat ñëpp di jaar ñëpp di leen baalu àq te di leen baal àq di ñaan yàlla boole ñu yéggal di remercier ñëpp ñi nga xam te ne ñu ngi suivre seen biir di Lu Xew TV di leen wax rek ngeen continuer di abonné di partager vidéo yi ngir liggéey bi mën a gën a yaatu di leen jaajëfal bu baax a baax di tuub nag di jégalu ci gëj a def vidéo gi. yéen ñi nga xam ne yéen doon laaj li tax defatuma woon vidéo lenn dong la li ñuy faral di wax rek kuy wax ba am ku la waxal noppi rek moo la war gis naa ni analyse yi ma doon def bëri na ci ñoo xam te ne léegi ñu ngi koy def muy vocal yi nga gis ñu may yónnee moo koy dugal xëy na xaw na wute tuuti mais macha allah xalaat yi ñuy génne xalaat yi am solo la te ku ko déglu rek dinga ci jariñu parce que série bii di maîtresse d'un homme marié mi ngi génn ay thèmes yoo xamante ni thème bi dafa laal société bi donc loo xamante ni sii ñu bëri ñu ngi koy dund di ci gis seen bopp donte nag am na ci ay yenn coow yoo xamante ni si des fois mi ngi ciy am surtout ci kaaw ni Marème di waxee mais loolu mënul ñàkk àdduna bi lépp loo def dina am loo xamante ni dinañ ko ci critiquer te ñiy critiquer aussi tamit am nañ dëgg ci benn côté bi quoi qu'on puisse dire Marème am na yenn wax yoo xamante ni si nii xaw na ñagas. mën nañ ko gën a defaraat ba mu gën a rafet te du yàq dara ci série bi parce que am na ñoo xam te ne dañ naan lii rôle rek mais ça pas dire ni artiste nga lépp lu ñu la wax loo da ko war a wax lépp lu ñu def loo da ko war a def artiste nga bien vrai mais tamit am na ci yoo xam te ni yaa ko moomal sa bopp parce que da ngay jouer mais jàppal ni ëllëg tamit dangay am ak njaboot. te bu ngeen xoolee jour bi nga xamante ni moom la Marème ak Cheikh nekk woon seen lune de miel ci hôtel bi noonu bi ñuy tëdd ci làll bi. boo xoolee daanaka yaramu Mariam bi mi ngi ci biti mais image boobu tey jii nii nga xam te ne mu ngi ci internet bi doomu Mariam bu demee ba màgg gis ko lu muy gis yaramu yaayam la gis donc tamit dafa jar a sóoraale gis naa nag ñu bëri ndeysaan bëgguñu ku wax dara ci série bi parce que seen série la da leen a neex donte nag seen série la neex na leen mais tamit am na ci yoo xam ne dañ koy bàyyi xel xam ne nit ñi tamit li ñuy wax dëgg la ñiy critiquer xëy na bañuñu série bi. parce que ñu ko bañoon duñ ko seetaan ba am lu ñu ciy critiqué mais ñoom li ñu gis mooy am na nuñ ko mën a gën a defaree mu gën a rafet te du choqué kenn loolu kese la donc loolu benn parenthèse la woon rek donc avant may indi tey point yi nga xamante ni si moom laa bëgg a débattre tuuti bëggoon naa leeralal numéro bi ñu bëri ñu ngi koy jël li ma laaj pour lan la donc ma leen leeral numéro bi ñett moo tax ñu def ko fi bi ci njëkk mooy képp koo xam te ne si da nga bëgg publicité danga am looy jaay bëgg ko wane ba ñëpp gis ko boo ñu contacter dinañ ci waxtaan ak yow bi ci topp mooy képp ku am analise boo bëgg a def muy ci série Maîtresse d'un homme marié wala lépp leneen lu mën a doon loo xam ne mën nañu jariñ mën na tax nit ñi mën ci jàngat boo ñu ko envoyé dinañ ko traité dugal ko troisième bi mooy képp koo xam daa am loo dund bëggoon ko partager soxla ay conseil mën nga ñu contacter waxtaan ki ak ñun ñetti yii moo tax ñu dugal fi numéro bi mais du groupe du numéro waa Marodi TV du numéro benn acteur boo xam ne mu ngi ci benn série donc loolu yàgg nañ ko wax ci vidéo yi mais dañ ko bëgg a leeralaat rek parce que ñu bëri ñu ngi koy jël yaakaar ni groupe la wala yu mel noonu nit ñoo taam bu ñuy envoyé message naan waa groupe bi ñu ngi leen di nuyu mais képp ku bëgg a bi da ngay envoyé directement sa vocal man su ma ko jotee dinaa ko dugal incha allah. donc loolu laa bëggoon leeral avant mooy dugg ci point yi nga xamante ne si moom laa bëgg a débattre ci épisode 37 bi alors tey sama première point maa ngi ko jëmale ci côté Cheikh parce que dañu gis ni démb d'après ni mu waxee Lalla daf ko am lu mu ko wax ñu ko Marème daf ma saaga affaire yooyu noonu mu ñëw rek attaqué Marème loolu de manière générale nit du am benn nopp rawatina nga ne kilifa di jiite kër nga yor ñaari soxna bul def lu la kii wax rek nga gëm ko ñëw attaqué ke même bu dul cadre kilifa sax nit de manière générale waroo am benn nopp da nga war a bàyyi ba am lu la leer door a réagir ki yor nag ñaari soxna bu sa aawa ñëwee wax la dara ci sa ñaareel wala sa ñaareel ñëw wax la dara ci sa aawa li nga war a def mooy jéem a dem ci ki nga xamante ne la moo wax lii wala moo def lii nga waxtaan ak moom mais avec la manière ba nga xam ne di nga xam lii xew ba nga xamante ne di nga xam li xew te après doo ci jëlee yee daane parce que tey Cheikh bu demee ba décovrir que carrément li laal la wax Marème deful loolu day tourné waat Marème maa ngi jégalu wala genre mel noonu mais loolu lépp mënoon na ñàkk bu defoon ndànk donc rôle la série la moo tax mu demee noonu mais li ñuy wax nii c'est pour ñi nga xamante ni ñi ngi déglu mën ci jëlee une leçon donc nit ku ne war nga def de telle sorte que duñu la wax dara ci nit rek nga tëb attaqué ko war nga bàyyi ba xam li xew door a mën a réagir beneen point bi ci topp mooy tey cadre laal man je me demande est-ce que wujjee rek jar na lii parce que gis nañ caprice yi muy def yu bëree bëree bëri lenn rek la ci jublu muy sëyi Marème ak Cheikh mu tas mais xanaa waxatuñ ni wujje bokk wërsëg la donc bëri na aawa yoo xamante ni si ñoom bu seen borom kër amee ñaareel rek dootuñu am jaam a chaque fois ñu ngi def le tout pour yàq diggante bële. te ñaar ñuy ànd nga def la tout ba tàqale leen bàkkaar bi ci nekk ku ko xamoon di nga ko métti bu baax a baax mais dafa dem ba nit ñi xalaatuñ yàlla ñoom li ñu xalaat mooy seen bànneexu àdduna ba tax na lépp lu ñu man dinañ ko def ba yàq diggante boobu noonu pour lan ñoom ñu mën a toog ci kër gi ñoom ñu mën a reñee waa mais ëllëg day am yëpp dafa jar a sóoraale bien vrai que nag neexul ak ñi mu demee neexul ku mu mënoon di doon. du la neex mais avant tout ñu jéem a jiital sunu borom d'abord xam ni lépp lu am moom la neex te lu mu def xëy na dafa doon li gën moo tax Mariam nag bari na yu bari yu muy dégg moo ko teg boppam parce que ni mu nekk woon ak Cheikh nekkin bu ñaaw woowu moo ko toog ba ci biir sëyam moo tax kenn ku ne war na ci jàng xam ni di nekk ak nit di dund ak moom yenn yi même bu la takkee cër bi nga war a am dëgg dégg doo ko am ci biir sëy bi nga nekk parce que sëy bi nekkul sa diggante yow sa boroom kër rek sa mbokk jëkkër dañuy bokk ci sëy bi te am na loo xam ne bu ñu ko xamee ci bi ngeen di génn yéen ñaar bis boo sëyee dañ la koy jàppal te loo def lu mu ndaw ndaw ñu indi loolu tegal la ko moo tax képp ku nekk ci àdduna di def dara war nga xalaat ëllëg donc bëri na suñu vidéo yi ñu doon wax lu mel nii ni ëllëg dafa jar a sóoraale lii mooy résultat bi nag Marème lépp lu mu doon def ci passé moom moo ko topp ba ci biir séem mais kenn ku ne tey man nga nekk jeune mën nga dund sa dund mais am na yu bëri yoo xam ne waroo fa yegg parce que soo fa yeggee rek ëllëg dina la sonal loolu moo waral mag ñi naan ëllëg du añ mais lu mat a sédd la képp kuy sóoraale ëllëg yu bëree bëree bëri doo ci dugg donc jar na bàyyi xel parce que Marème démbam moo ko sonal tey jii nii donc tey loolu moo nekkoon vidéo bi.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 da nga bëgg publicité jokkool ak ñun lu xew TV xibaar yi wér te